et mën nañ ci monsieur le maire tout simplement de qui est le coordonnateur Horizon 2019 donc monsieur sur sur le plateau ay Sonko Sonko la ne 2009 2022 donc damay daal di jox kàddu gi nga xam ne moo di sama naataango Malick mu nuyu ki nga ne moo di monsieur le maire Malick la parole. Euh, salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ku nekk pour sant dañu sant yàlla parce que xëy na y a un mois de cela bi ñu lancé plateforme dafa déplacé wu ñëw ba suñu ñu toog waxtaan ci projet bi. mu nekk un projet ambitieux. dans la comme ni ma koy faral di waxee rek ñëpp xombal la ñu am yaakaar naa ne doomu xombal ak fu mën a nekk ci àdduna xelam ak xolam xombal rek mooy du nekk. nan lay def fan lay jaar ba yëpp fi turu xombal ba seet li avance xombal mu ngi ci dox yaakaar nañu ne ci seen initiative nag pour mën a approuvé pour mu jëm kanam loolu moo tax moo waral fii ñu lépp day delluwaat ci xombal moo waral suñu teewaay fii mais également bu nekk ci dëkk bi mu jàpp ci a laaj bi parce que bés bi tamit boo ko xaw a laaj ñu ngi gis ni tamit yow. candidat nga ci élection locale yi depuis deux mille vingt deux yii nii yow sa mouvement fu ngeen toll ci ci ci ci préparation élection yi. waaw maa ngi leen may rek ci li waral horizon deux mille dix yaakaar naa ne comme ni ko ñëpp ñu xombal leen yaroo ci la ñu yàlla def aussi ñu dem ba yëpp ne am nañu responsabilité bu gàll ci suñu loos parce que ndaw li ma naan bépp ndaw bu yeewoo ci dëkk ak gox bu mën a doon li mu war a digal ak boppam mooy lan la mën a gox ba lan la mën a jariñ parce que bu ñu jariñ wala mën na sa du wul di dese donc dañuy évoquer ce qu'on appelle la citoyenneté dëkk ci dëkk war a fexe ba lépp luy jëmale dëkk ba kanam da ciy topp ci wax loolu moo ñu animé nekk un mouvement de jeunes boo xamante ni benn instant dañu jàppoon ne on a benn débat boo xam ne dañ ko yoral xombal mooy taxawu ko mooy jàppale ko ci suñu doole doole yëpp ak suñu xam-xam yëpp ci ñu lancé woon l'idée de créer le mouvement Horizon 2019 mu boo xamante ni au début ñu s'activer dans le social et la plus grande discrétion parce que dañu jàpp ni aussi boo ko dimbali di gën a yelloo mën def ko ci sutura moo taxit euh, yàgg nañu def euh, social ci sutura suñu ko def su ñu ko def ci réseaux sociaux yi su ñu ko def benn plateforme loolu moo ñu yóbbuwoon ñu dem ba ci biir gis ne mën nañu développer yeneen projet yoo xamante ni xaj na du social kese ci lañ investir ci wàllu environnement notamment dans la collecte des ordures des ordures ménagères c'est un projet boo xamante ni am na horizon Euh, pièce bi ñu njëkk a def rek mooy le mouvement a créé un emploi salarié boo xamante ni dañ wutee salaire chaque mois ñu di ko fay di ko fay salaire en contrepartie muy jël mbalit yi nga xamante ni dafa nekk ci rajo di ko yóbbu yaakaar naa ne loolu taxawaay la loolu aussi moo ñu poussé woon à un certain moment ñu gis ne jëriñ Khombole fi ñu investir dans la création d' entreprise ñu naan entreprenariat te ñu créé euh, organisé journée de l' entrepreneuriat ci Khombole foo ngi jiwoon jëriñ Khombole yëpp dañuy ñëw mu nekkoon di grande réussite parce que li may faral di wax mooy euh, jàng ba am diplôme dem wuti liggéey yomb na mais li gën a jafe mooy ginnaaw boo jàngee am sa diplôme am sa xam-xam lii nga dem wuti liggéey yow nga jéem a créer ay liggéey maanaam créer sa entreprise entreprise boobu di recruter ay ndaw ñu nekk ci jigéen yaakaar naa ne loolu moo gën a méritant te loolu mooy tax ñëpp di jëm ci dara aujourd'hui à Mbapat on a besoin d'avoir des majors maanaam ay nit yoo xamante ni dañuy dañuy dañuy dem mais dañuy yóbbaale ay nit ku leen jaar ñu dem ci liggéey donc sa bopp am xam-xam créer sa entreprise yóbbaale bari yaakaar naa loolu moo ko am nañu lu parce que man may liggéey espèce travail gis nañu am na ndaw yoo xam ne ñoo leen formaliser seen entreprise pour commencer sax di liggéey di gagné ay marché parce que loolu c'est sanitaire. merci beaucoup. Euh,

ak ku mu mën a doon qu'il soit Lamine Gueye qu'il soit Modoy Boy qu'il soit docteur Ndiaye qu'il soit euh, Omar Ndiaye ak kenn ku mën a doon ak yàlla teg de football mais ñu doon na rek ñëpp dañ war a booloo booloo pour former un seul bloc xam ne les les attentes sont là te rek am na ci suñu partition à moo tax kooku pour votre information horizon 2019 ah en tout cas écrit un programme qui va sortir en tout cas dans quelques franchi euh, la date c'est le 8 euh, janvier 2022 à travers un dîner boo xam ne ci kaw bee ñëpp képp ku bëgg a xam lan mooy programme bu Khombole ak fan la ñu bëgg a yóbbu Khombole ak fan la ñuy jaar ba jël Khombole yóbbu ko fi nga jël Khombole euh, yëpp bëgg dañu fekk incha allah le rajo ci terrain basket bi ci lay def projection livre programme bi nga xam ne moom la ñu proposé Khombole di ñaanal jàmm di leen ko ñaanal ñëpp teguñu ci ko gërëm vraiment kontaan nañu